ñu xool l'observateur li mu xëyee tey Apulay tey ci alxames bi 23 mai 2024 avec euh, une bi euh, la vérité sur la cession des euh, immeubles de l'État la demande de Sonko le premier ministre sur le foncier bâti de l'État ci conseil des ministres bi État ak détail des baux signés avec les privés et puis le rôle déterminant et le jeu de transparence de la SOGEPA ñëw nañu aussi ci révélation ci wàllum propriété villa yi ca cité euh, Faysal lépp mu ngi ci biir l'observateur et puis euh, les chiffres inquiétants des finances publiques page 4 la mbirum activiste bi di baajaxate euh, enquête bi ci dikk ci wàllu woowu l'activiste mu ngi ni yëf yi dafa nëbbatu voilà se euh, prévaut du titre de lanceur d'alerte voilà j'espère que j'ai bien lu ñu dem voilà merci beaucoup El Hadj Malick euh, blanchiment de capitaux escroquerie ak détournement de deniers publics le maire de Sindia s'embourbe dans le foncier euh, page 7 la lii nag Derklé la foofu la xewee benn imam ci julli fajar gi daal kenn bugg ko may <laughs> foofu ñu génne ko ci jumaa ji mi ngi ci page 5 wàllum lamb bëri dóor cachet des lutteurs le fonds de combat dévoilé page ñu record moom itam lu mu xëyee tey jile à sa une ci alxames bi record Khadim Diaw défenseur Mauritanie on respecte le Sénégal mais am na lu mu ci teg muy match bi war a dox seen diggante euh, liste des Lions euh, contre RDC et Mauritanie euh, Chérif Ndiaye étrenne sa première convocation ci wàllum football ba tey Coupe du Sénégal huitième de finale Jaraaf Tëngéej FC ak Casa Jamono en quart et puis tournoi UFOA A ñi seen moom at motagul ñaar fukk ci jigéen ñi Sénégal Guinée-Bissau CEDEAO benn bal eh, ci dara lamb Ama Baldé toise le troisième tigre nee na j'ai de la peine pour euh, Gris Bordeaux mi ngi ci page 12 euh, l'observateur <laughs> ak record ñaari quotidiens yi ko Futurs Médias di édité ngeen mën koo liir jënd xibaar yooyu Ama Baldé fan la nekk Pikine je sais je sais xamoon naa ni loolu la. <laughs> ak i mbokam kay. <laughs> on verra bien. dinaa wax a fas ñu koj la nga xam boo wàccee. <laughs> daa mën a xeex daa mën a dóor ah, ah, ñu dem ñu dem ñu dem xooli ci météo bi en express ak Oumy